gësamante gi woon ci diggante état bu nag bu noppi soo ko xam ndax seen grève bi ñu ngànk dañu koy yàbbi am déet sa accord yooyee ñu siife démb te ci fukki poñ ak juróom-ñaar journal déggoo ngir mën suul nëpp nëppal mbirum dem si yàlla asu soxna mi ñu ne dañu ko sàggane ba mu dee ci loxoy docteur yi ci hôpital bu Louga accord yi mbaa du doon xalu ndéef ba nga xam ne gëmm gimmi da koy yomb ne journal Sour Soit mi ngi ñuy xamal ni union des syndicats de bu am ca dëkk ba maternité yi ca dëkk ba di Louga dakkal nañu bépp activité boole a atte santé bi bu weer yu deewee da nga ko yëg ci sa salaire ndax état bi dina la ko dagg ci sa payoor bés bi le jour nañu Abdoulaye Diouf Sarr na ba amuk déggoo digg mag waa ànd gësam ngir wàcce dënn yi waaye si bi ci réew mi bu ñu ci teelu ta wax dina fi yëngalaat ay dënn yu bëri bés bi le jour nañu coronavirus bi la toppoon ba waxuñu ci si bi waaye moom it mi ngi mel ni fitt gu mbër sànni ci ci réew mi ndax boo jëlee dëkk yu ci mel ne Dakar Kédougou Tamba ak Ziguinchor paludisme bi bari na fa trop temps yi temps yi politique kat yi ci réew mi tàlluñu dara ndax waajal wote député yi ñenn ci ñoom di waa Yewwi Askan Wi l'Observateur mi ngi ñuy wax ne seen yéene moo di fexe ba am député yu bari ci assemblée nationale bu ko defee ñu mën a imposer nguur gi ak cohabitation ba tax ñu teg weneen xeetu investiture waaye bu ñu deful ndànk yeewi askan wi rek lay folote ñoom waa askan wi ak waa Benno Bokk Yaakaar yëpp yéenekaay bi nee nañu coowal investiture yi tax na ñoo ngi bëgg a xuttiku ku fóotal mbëtt roccil bar bil enquête yéenekaay ñii di waa Benno Bokk Yaakaar ginnaaw fanweeri junni parrain yi ñu dajale woon ci Ndakaaru yagar yagar yi yóbbul ko Macky Sall Macky xooloon ko xeebal leen ko ba waxoon leen ko enquête yéenekaay nee nañu waa Benno far nañu daanu jël ci wutum parrainage xutti nañu Maam El Wade ni nee na nañ ko ko jéggal du ca def ab liste ci journal Le Quotidien la bi am déet ma bi ànd ak libération dugg bar ñi lu yéeme te xew di benn xale bu jigéen bu toll ci juróom-ñetti at moom la ñu fekk ñu faat ko ci anam wu ñaaw ci tabax bu bi nañu li ñu njortagum jamono ji moo di dañoo yegg ci kawam maanaam dañu ko violé a mel it journal xew ca Thiès foofeet benn xale bu góor bu toll ci juróom-ñetti at di huit ans moom lañ fa doon jéem a rendi mu rëcc photo yu koy firndeel ñoo ngi ci xët mu njëkk journal bi journal beneen bu xëyi mbir mu doy waar moo di Les Échos yéenekaay bi nee nañu gaa yi commissaire Khadijatou Sall yi ca commissariat bu Rebeuss ñoo jàpp benn doomu Nigéria boo xam ne yàpp mbaam sëf di viande de âne la jëloon def ko ci puus puusam di wër di ko jaay